asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ci ndigalu sëriñ Babacar Sy Mansour xalifa général de Tidiane Thierno Mouhamadul Bachirou Tall xalifa général de la famille omérienne ah mbokk yi bés bi ñëpp doon xaar yegg muy gàmmu ren ñu ko nag son excellence monsieur Macky Sall président de la république du Sénégal ajaratu Marième Faye Sall première dame du Sénégal madame Dieng Ndeye Saly Diop ministre de la femme Adama Racine Sow responsable kuréelu jàmm ji Amadou Diallo consul général du Sénégal à Paris madame Mbacké vice consul du Sénégal à Paris njiitu présidente muhajirina wal ansar section France soxna Oumou Taal Omar Mountaga Daha Omar soxna Mamad Dramé commerçante présidente daayira Ya Salamata soxna Koña Diop présidente les femmes commerçantes marché HLM Cheikh Ahmed Tidiane Mbaye président mouvement sa dëgg-dëgg soxna Fante Doukouré Jamil soxna Aïda Dramé présidente d'honneur les femmes 45 Orléans El Hadj Mor Mbaye boutique Le Tivaouane Paris Ibrahima Ndiaye transitaire l'ancien adjoint au de Tivaouane El Fatimata bintu Rasul Marseille Matar Ndiaye lam toro automobile ah Mouhamadou Lamine Camara jàmbaari islam ji transitaire bu mag bi El Hadj Modou Men Diop Ajaratu Sophie Ndiaye la Sophie Madame Ndiaye Binta présidente l'association ADA mbokk l'ensemble daayira Tidiane de ci njiitalu Serigne Mor Diop Thierno Omar Anne Massamba Fall Ibrahima Kasmir Diouf Adama Kayta Serigne Lamine Dieye Doudou Wade soxna Mam Tall soxna Khady Thiam soxna Ami Thiam soxna Mariam Gaye soxna Sarr soxna Ami Diallo soxna Awa Wane ñoom ñëpp ñoo ànd di leen woo ci seen quinzième édition wu guddi yonent yàlla Mohamed gi kañ la samedi le 18 janvier ci teewaayu imam Mohamed Dicko El Hadji Pape Samba Poitier ah xam ngeen kii taxawee guddi gi nag ah, <laughs> jàmbaari l'islam ji ki kenn dootul présenté kenn kan Chérif Ibrahima Aïdara ak Tidiane ànd koog doomam soppeem ba xaritam ba kan daw góor Ndiaye le griot de VIP ñu ci woo daayira yi association yi rawatina ak fédération des daayira Tidiane de Grand Ouest ah, mbokk yi guddi gaangoog samedi le 18 janvier adresse 179 la gare 35 530 Sevron sur Velin Rennes. ah mbokk yi guddi bu ko kenn tardé.